léegi ñu ñëw ci question bi nga xamante ne actualité la ndax gis nañ euh, tout récemment ñu ne nu mu tuddee di kàggu éducation sexuelle ñoo dañ ko bëgg a jàngal xale yi ci école yi noo gisee loolu. ñun euh, chaque jour dañuy bàyyi xel nañu ñun ay jullit lañ man laa bëgg ñu koy jiital comme ça man tey donc ab professeur laa yor école wala ma yor sama xaalis tabax école toujours nañ jiital maanaam jullit ji iman gi suñuy biir xol xam ne ay ñun ay jullit lañ xeetu seenaa Muhammad lan am na loo xamante ne suñ diina may ñu ko imagine sa doom la ci école di jàng xale bu ndaw ah xamagul sa awraam nu mu tudd xamagul awraam nu mu tudd moom xale bu ndaw bi nga mm-hmm. koy jàngal loo xamante ni ba xam yaayam da nga koy def kenn ak kenn da nga koy def te ci xale bu ndaw boo xamante ni xamagul ci dara kon kooku boo koy jàngal yooyu bu yàggee sax mën naa tëdd bu guddi sax di yéen ba xam yaayam di xool ah imagine loolu amoon na fii benn waay boo xamante ni euh, dafa yor soxna yor doom yaa ngi dégg guddi jot ñoom moom ñoom ñaar papa ja yaay njëkk nelaw seen doom yaa ngi dégg bi njëkkee nelaw non non non doom ji moo njëkk nelaw après papa ja yaay le papa yaay ji bi nii sëy nag ci la xale bi xam nga gis leen nii xale dafa xëy su ba dem jubal dem ci maam nag sama sama papa bu guddee day sama ko sama papa bu guddee day sama ko kii euh, yaay di affaire yooyu quoi. xamul xamu ko xamul loolu. mais nga bëgg a jàngal na xale bi loolu ci école yi loolu mooy lan loolu doxul lu ko fi def loolu baaxul de man de instant bi ci télé bi saa bu fi nekkee mu jugee entraînement ba toog fii xaw bi sama tey sama loxo laa koy tey saa wu ñu jàppee dara ma gis sax ñaan yu waajee fóonante dama koy zappe daa rafet rafetul nga toog sa njaboot ñu teg be film boo xamante ni dangay jàkkaarloo ni ay jigéen di say ay di fóonante say doom yoo xam xamuñu dara loolu laa sul ma soon daal Sénégal ñun ñëpp ñu def benn xeex bu ko fi kenn amal loolu dafa ñaaw sax loolu rafetul sax ñu di ko di wax ji daal buñ ko fi dàgganaloo nga génnee sa doom ci école bi. barko rasulilah sama doom day jàng français di jàng loolu boo amee ci école ma jël sama doom bàyyi ko mu jàng arab kese wala bi ma nga xam sax bonjour ak bonsoir sama naw ci loolu baaxul pourquoi. ñu ne ñu ne encore ma encore maa ngi seetaan fi naan bon boo xoolee boo dem boo demee réew nasaraan yi day école bi lan lay jàngal yow fekkee góor nga. bu la neexee sa sa sa sa sa ah. góor wala ku jigéen ki choisir jigéen ak jigéen wala yow jàngal xale yu ñuy seey loolu mooy lan affaire yu bon yooyu loolu mooy lan loolu bu nañu dimbali ak affaire góor jigéen na ñu dimbali. yooyu mën la am Sénégal amul ay daam lu xaar ak ñu xaar yooyu am yooyu soxlawuñ ko ñun senegal góor sa góor ña jigéen ñi sa jigéen ña am sa jabar mu lay toppatoo tegal reer bu neex ngay reer lu ko dàq. yow nga bàyyi fi sa jabar yow di wër sa moroomu góor lu gën a salte lu gën a ñaaw loolu moo tax ñun xeetu Seydina Mohamed billahi Seydina Mohamed la ñu yàlla rusi mais bonte Seydina Mohamed yàlla alak nañu bu yàgg ndax xeetam xëy di jiitu woon Seydina Mohamed yaa ngi dégg yàlla loolu xool kaam nu demee. yonente boo xamante ni tey dëkk ba ay góor jigéen ñoo fa nekkoon jabaram jiite leen te jabar jabar jabar jooju jabaram jooju jabar yonente la te jabaram jooju safara la jëm. yàlla dafa dëpp dafa jël réew ma dëpp ka dégg naa ba nit ñu toogee waxtaan sax maa yow nii réew maa ngay dem dalagul ndax affaire góor jigéen ñi fa amoon kon nag président Macky Sall suñu président la jox na la cër torop ñu ngi lay ñaan amul Barack Obama amul ay benn président bu nekk ci àdduna bi ku mën a doon ji président bu la kenn gëmloo affaire góor jigéen ba nga validé a fii si dëkk bi ñun soxlaawuñu loolu góor ñi sa góor ñi jigéen ñi sa jigéen ña ab góor jigéen na bu nekkee Sénégal fii ba nga sonal nit ñi da nga koy daggal bi mu génn fi dem ca borom góor jigéen ñam ya fa nekk mais mu Sénégal fii réewu jullit lan réewum Ahmadou Bamba ne àdduna doon xaar Sëriñ Tuubaa yàlla may nu ko Mawlaaji Malick nekkal naar bu weex tal sëb sikkin lay laal suuf mu lay wax ci Seydina Muhammad xam yow yow mu juddoo màkk mënoo kaa xam. Seydina Limaamu ne fii ne mën a woon démb mën a tey yaa ngi dégg kon ñun lu lu nama ñun Sénégal ah. ah kon def lu baax rek moom moo nu war ama lu jënd sonal lay góor jigéen nañ jàll fële ak ñu ne ci école yi naan ay affaire jàngal suñu doomi ay sëy ñoom nag démb xool lu ñuy sëy bàyyi xale yu ndaw yi ñu ñu mel na neen ndax fi toll nii kenn bëggul ku la gën waaye ku soon doom gën la hmm. kenn bëggul ku la gën de mais sa doom bi nga jur boo sañoon tey mu gën la. loolu moom bu ñu ko fi ñu sonal nit ñi quoi vraiment bëgguñ ko quoi. waxtaan bi neex na waaye so